ñu ni Cheikh Ahmed Tidiane wax na ni benn salaatul fatiha taadalu sitta alaf xatma cheikh a ko wax am na sax ñu ne dañ koo def dañ koo dugal ci biir même buñ ko dugalee ci biir mhm. lu neexal la yàlla mhm. parce que yàlla bu fekkee nit ku jàng mathématique war na xam ni mhm. même bu cheikh waxee loolu làq na ci ginnaaw ni alxuraan dara melul ni moom te danaa ko indi par détail preuve bi ma ci joxe bi gën a ndaw mhm. yi ñu ci wax yëpp six mille la six cent mille six mille ba nangam mhm. xam nga lu lu Cheikh wax ko indi nee na benn xarafu alxuraan dara tollul ni moom dëgg la mhm. bi ni benn xarafu alxuraan jàng gi ñu ngi la ci defal fukki tuyaaba Babacar kaamil bi cent soixante deux cent soixante deux mille arab la cent soixante 162 671 araf 162 671 araf araf vous de mhm. par 10. Ah, Les multiplier ma 162 eh, 671 mhm. mhm. fois da un million 626 <laughs> mais lu tax Cheikh wax ko. waaw dafa am lu ñu tuddee babul maziya. parce que danaa ñëw suñu thème. Mhm. maziya mhm. laa taqtadi al afdaliya. loolooy la ku xam na ni Màkka moo gën ci bërëb mhm. ci bërëb yi. boo ajee. waaw te demoo Arafa amoo aj. dëgg la. kon maziya dana dem fil abadaat. waaw yonte ne alxajju al arafa alxuraan alxaju arafa aj mooy arafa kon soo demul arafa amoo aj kon li li ko màkk yi gën a foor bërëb ba li ko madina yi gën a foor bërëb ba yépp ak loolu lépp arafa am na lu màkk amul am na lu aj amul parce que boo demul arafa munoo am aj kon est-ce que loolu firi na ni arafa gën aj arafa gën arafa gën màkk déedéet déedéet <laughs> du tee màkk ak gën makkaa ko gën yonent bi wax na ni Omar mbedd mum jaar iblis doot fa ñeme jaar day teggi waaw loolu maam Ibrahima amu ndax daa jël xeer di ko sànni iblis ku ne jég na ramuyul jamrati Ismaayil amu ko ndax dañ doon sànni xeer waaw ah, te Omar moom fu mu jaar iblis te loolu xadis la te yonent daa firi ni Omar moo gën Ibrahima Ibrahima moo gën xam ndax yoon mum jaar iblis ko jaar ma taxaw Xuseyfatul Yamaani moom la yonent bi jàngaloon nit ñi xàmmee naa feq yi te jàngalu ko Omar jàngalu ko Abubakar ba tax na Omar daf ko daan woo ni ko Xuseyfa wax ma ndax man naa feq laa wala di su nit deewee bu ñu koy gunge Omar day seetlu Xuseyfa bu demee mu mu xam ne du naa feq bu Xuseyfa toogee la <laughs> waaw masiya boobu xam-xam boobu ñu may Xuseyfa tax na Xuseyfa Omar mu gën Omar kon am nañ masiyatu fil makaan mm-hmm. am nañ masiyatu fil ibaada mm-hmm. khadir ku ne xam degn iswaram ak yonti allah musa khadir ci doxalinam wanul musa atte yo xamni ci ànd yonti allah musa ci gisin xawon nako jaxal moy fek mir bu daanu mu yekuti ko ray xale ba beut gal ga te musa def ne ko damaa bëgg ànd yow pour nga xam ci limay xam ku ne xam du yonent du yonent mhm. te Moussa yonent te Moussa yonent la ba waaj a ñëw Seydi Hajji Maalik di ko diir mbagg di ko laaj masala bu ko daan naan ko loo xam ci yonent yàlla xudar mhm. alaaj maa ngi di ko ah, wala yu xadir <laughs> sëñ Babacar si wax xool ton ton ton sëñ Babacar ñëw ne sëñ Babacar loo xam ci yonent yàlla xudar sëñ Babacar ni ko ah, wala yu xadir wax na ko ne du yonent wala yu ba pare wax na ko kenn wax xudar xadir la ñuy wax te lépp te lépp ci benn tontu la wallaahi kon foofu nga yëg ni masiya laa taqtadi afdaliya te cheikh nag amul fenn fu mu waxee ni salaatul fatiha gën alquran lu dul dafa ne taadilu ba mu des nag ci ñeenti place cheikh nee na foofu moom salaatul fatiha gën kaamil alquran loolu na mu jëwaay ci ñeenti place waaw kay ñeenti wax am fu salaatul fatiha gënee bi ci njëkk cheikh dafa ni ki nga xam ne suy jàng alquran day wëg ni lii wax yàlla la muy jëfe ay ndigalam mhm. di bàyyi ay tereem kooku lu mu jàng lu dul alquran yàq na ko mhm. alquran la war a jàng cheikh teg ca ni boo dee sama taalibe far force bés bu ne ñaari xasib war nga ko jàng lu gàtt-gàtt lu néew néew mhm. keneen ki moom day jàng di comprendre di xam ne li waxu yàlla xolam di ko yëg kooku nag tollul ko njëkk waaye li mu war a jàng lu dul alquran yàq na ko ñetteel bii moom comprendre wul de mais li Alxuraan di tere góorgóorlu na ba bàyyi ko ba du ko def mu ngi def lim santaane di bàyyi li mu tere Cheikh ne ñetteelu nit kii Alxuraan jàng Alxuraan moo gën ci moom bépp zikkar moo gën ci moom bépp naafila moo gën ci moom bépp Alxuraan ñeenteel bii may bëgg a wax nag Cheikh nee na ki xam li Alxuraan tere mu jàng ko ba pare tey di ko def yonent bi ni rubba taalin wal quraan yàlla anu mm-hmm. xadis ba tirmisi solo boo demee ci eh, eh, siiratu xalab bi ca buj ga ma nga fay indi xadis ba ak na mu tëddeeg ña ña ca ña ca dëppoo ña ca dëgg mm-hmm. ba am na ñu koy weddi mu ni rubba taalin mm-hmm. wal quraan yàlla anu bari na koy jàng al quraan fekk aaya ja muy jàng bu ca yegsee tey def li aaya biy tere aaya bi da koy rëbb cheikh nag ni ñeenteelu nit bi jàng benn salaatul fatiha gën ci moom téeméeri kaamil ndax téeméeri kaamil téeméeri ndax aaya ju mu yegsi rek bu dee sàcc la aaya bu mu yegsi aaya sàcc ba rëbb ko mhm. cheikh ni waaw ki nar a jàng benn aaya sàcc bi mu di ko rëbb téeméer yoon bu jàngoon benn salaatul fatiha moo gën ci moom léegi nag ma ñëw ci jàng benn salaatul fatiha waaye bala maa yegg ci salaatu yegg ci fatiha ji ndax salaatu fatiha mhm. ak fatiha benn bagage la waaw salaatul fatiha julli waaw julli julli yonte bu ñu tuddee salaatul fatiha benn dong la cheikh it moomu ko mhm. cheikh moomul woon salaatu faatiha salaatu xam Muhammad Bikri lañ ko wàccee bañ koy wàccee ci xayb la jógee ñiy weddi nag ni salaatu naka lay jógee ci xayb ah, te bu ma la jógee ci xayb kenn xamul lu mu toll xadiisu yonent bi bokk na ci xadiisul euh, kifl ba ko ndaw sa bëggee mooy mu xalaat yàlla ba jooy ni ko ah ñàkk naa waaye dee ak ngor moo ma gënal di njaaloo wala di mm. mooy yàlla mm. ba mu dee ca guddi ga la yàlla yabal ci ñu bind ca ca xëy mm. ca ca bàmmeel ba yàlla jéggal na bàkkaar yi kiful mi ñu xëy rek gis ko ndeysaan ñu gis ko ca biir bàmmeel ba mm-hmm. lan moo ko ko may mbind la moo xam ne jógewul ci kaw suuf mm-hmm. dëgg boo demee ci dalaa euh, jaamu karamata awliya yi mm-hmm. nettali na nit yàlla boo xam dama ni nañ ma woon ismulaali azam ma di ko jaamu yàlla ba guddi ci miiru asamaan yi lañ ma bindee turu yàlla ba ma soxla woon kon moo ko bind nit te loola nit yàlla yi dañ koy am jamono bu nekk. waaw ah, wallaahi jël naa sax waxuma nitu yàlla ñeexu gaarante garanti. Mm. waaye nit ko yàlla baaxee. ci mm. sama njort bu rafet dañ ko koy defal. Mm. ñun suñu waajur euh, dañ koy wax taxaddusan bi ni'ma muy sëñ Abdou waaye tëdd na bu guddi mu génn benn dënu bu faax. ñëpp di def mu fii nee na mu tàllal loxoom ñu teg ko ci mu mel ni lu ñëw ba tuuti ba teg ci loxoom. ñu ko bu subaa boo xëyee na dem ca ndox ma ca géej gi nga xoole. wallaahi mu xëy suba dem ànd ak soxnaam dem ba ca tefes ga fekk fa xeeru dënn bu xonk ñu bind ci Muhammad def ci ñetti araf saat ak kaaf ak deel xamul la la mu jël ko ànd loolu ñun ñëpp dañ ko xale waale màggaale ko te taxul mu ni ñu moom wàll yu taxul ñu dara dala koy wan lii ngay gis est na nag ñetti araf yooyu dem na ba mujj yàlla woon ko ndekk la mu ci juboon mm-hmm. bi mu àddadee sadaqallahu azim ci la mu jot lañ ko ca isaar <laughs> te loolu ñun defuñu ko wilaay defuñu ko dara saa di gëm nañ ni yàlla ay mayam ak mbaaxam masiyam c'est-à-dire day xool jaam ko neex mu defal mu defal lu ko neex xam-xam di nga toll foo xam ne guddi billaahi ñu wax ilham la loo xam ne du ne ci téere dëgg mm-hmm. Mm-hmm. moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ni kutub yi yëpp dara wasaayil la mm-hmm. maa fil kutubi illaa euh, xusumaat lii ay wasaayil la mais xam-xam dëgg newul ci téere surtout rijaal laa fi bu tënul kutub kon nag bu fekkee matériel yooyu am na ku ci yàlla joxul nag am na droit ba hmm. kon loolu salaatu boobu si Cheikh Ahmad Tidiane yi xëyu xëy ni mën naa fi indi salaatu fatiha hmm. dem na sax ba gis ci dara xara salaatu boo xam ni na doole ja mel ak na mu neexee te nag naa li wax leen salaatu ala nabi hmm. il faut nit ñi daa bàyyi xel lii may bëgg a wax gis xamu yàlla du jàng alxuraan du jàng alxuraan du waqaf yàlla du joxe asak yàlla du aji màkk yàlla du woor xam nga yàlla lan lay def lan lay def julli ci yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam parce que baabaka yow li yàlla def ak lim du def lu gën ak li muy def a gën ah man damay laaj waxu ma moo gën waaye damay laaj li yàlla def ak lim du def lu gën ah, ah, ah, ah. li muy def day inna allaha wa malaayikatahu yusalluna ala nabi yàlla wax ni yonent bi ku julli ci bi benn yoon ndax wax naa la tegal ma salaatu faatiha indi ma salaatu ala nabi rek sallallahu alayhi yàlla wax na ci xadis ko di ku julli ci bi benn yoon man yàlla ma julli ci yow fukk yoon ku julli ci bi fukk yoon man yàlla ma julli ci yow téeméer yoon ku julli ci yonent man yàlla ma julli ci junni yoon léegi Babacar man maa ngi laaj ñi may seetaan benn julli yàlla ku ma mën a wax poids ak darajaam ak maqaamaam ak naka la toll ba ma mën koo gam-gam léegi yeneen jaamu yàlla yi ñuy def laa yox sax ah mm-hmm. boo mm-hmm. moo tax maam Abdou ni biixi naa la maa naa la rijaalu mm-hmm. maratiba ah, minal maliki la àllaa bi ci lan lañ ko amee ci salaatu ala nabi waaw sallallahu alayhi wa sallam jalla dem nañ ni salla te julli ci yonte bi xam nga benn yoon la nekk faral sa dund ah, boo demee ci ibnu aas sa ibnu aas julli ci yonte benn yoon doo la nekk faral sa dund